Euh, mbokki géejawaay info yi tey nag euh, ñi ngi ñëw fi nga xam ne mooy école de lif Mor fekk fa euh, fekk fi ndaanaan champion ñu naan ko Bou Siteu Bou Siteu ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi leen di fay di nuyu waa àdduna di woy nuyu waa Sénégal bu baax a baax waaw ngi nuyu waa surtout waa géejawaay di nuyu waa géejawaay bu baax waaw bëggoon nañu xam tey kan mooy Bou ci làmb ji waaw Bou moom benn xale la rek waaw benn xale la bu doon yi xama doon dawal seret daa gën a xam ba yàlla def tey li mu def ma mm-hmm. ba tey may yëngu si làmb daan topp saa waaw ba tey yàlla def lii nii ma nekk mbër waaw. Euh, bu Siteu ñu gis ni tolloo ni mbër yi waaye sooy bëree làmb am ci yow yaakaar sooy bëree mu mel ni réew mooy bëree. waaw loolu loolu yëpp tamit waa Géejawaay rek ndax ñoom ñoo waaw ñoom ñoo lii yëpp ñoom la. ñoo la jàppale daal waaw ñoo ma jàppale ñoo ma taxawu te triché wuñ. mooy bëre géejawaay day mel ni Balla Gaye mooy bëre géejawaay fii ñëpp moo loolu waaw ñëpp mooy ñaanal waaw. bu Siteu nga jóge ci combat bu metti woon ñu gis sa diggante ak guy gi amoon coow ñu gis sax ngay bëre def ci tarkindaa ñu gis aussi tamit sa relation ak guy gi demewul woon noonu ci combat boobu ba ñu for nañ ci weewu bëy bu Siteu guy gi bu Siteu guy gi ba ñu dégg sax ni bi guy gi di préparer combat am da nga génn écho de lif bi beneen bi mooy ñu seetluwaat ni sa diggante ak euh, Siteu mu nekk yéen ñaar diggante relation mun nañ ni bu am solo nan nga nan nga jàngatee moment yooyu. waaw loolu noonu dama ne woon sax du ma si wax. mais amaana yow yaa laaj laaj boobu sax pour ñu leeral Sénégal. waaw parce que aussi tamit jot nañu leeral téléspectateur yu Guédiawaye info yi nga xam ni ñu ñi seetaan ñu ngi ñuy déglu. waaw loolu tam dañ koy leeral ko waa ndax man xam nga damaa nekk xale moo loolu yàgg bëgg Siteu boo bëreegul sax mbapat ñuy ànd may temps yi aw ma sax fas fas su jaamur laa doon liggéey dem ba jaama gën jaama gën a xam ndax bëgg Siteu daan ko topp xam nga yàgg dem jaama gën quoi boobu xaw ma sax guy gi waaw combat bi moo guy gi seen combat ñëw moo sita xam nga rek dégg naa si lu ne. c'est vrai jaama gën a xam moo lool nit ñi dem am lu ñu wax ma ñëw gars na ma arrêtal ndax combat yow da nga far si Siteu affaire yooyu noonu mooy loolu affaire daf ma jëlee kaw quoi. yaakaaruma woon ni moo la sama waay dina demee noonu ndax guy gi moom lu mu bon bon bon. lu ne dundal nga ko ñun gis nañ ñun ñun ñun journaliste yi. signature moo. moog ama waaw gars yi jàpp nañ ma ma tëdd si kaso. yëg nañ xam nañ. ma tëdd si kaso bu métti mu jël avion dem préparé ji combat ma tëdd sama Thiès man kese maa ko tëdd fël yaa ma gën a xam kon kooku noonu man maanaam jaraloon na ma leen li quoi. maman yooyu nga dund ko ñu xalaat ni. ak jaar-jaar bi nga am nga wax ko legui sa combat combat wam mom ak Ama balde ñu gis nga dem daanu ci dem teddi ci kon bu li ñewé tay guuy gi dundul la lolu nan nga ko gisé jot na tamit nga leeral spectateur yi nga xamni débat bi intéressé non la gaay mom defuñu mom waaw morfodam dama ñëw école morfodam xam nga papa di nuyu à passage. Mm. di nuyu mom tamit. Mm. morfodam Fadam nekk ku baax. waaw dama ñëw école rek mu na ma arrêté l'entraînement ndax combat Gouye Gui ak Siteu bi xam nga. combat boobu aussi tamit coow def ci bëri woon. sa diggante ak Siteu ñëpp xam ko guy gi nekk sa poulet am komba ak Siteu ku ragalul ku ñëw ku ragalul yàlla danga naan far am na. non dëgg la man moom combat boobu invité woon nañu ma fu rajo gars yi laaj ma si combat mën leen combat bi du ma wax ndax Siteu ak Gouye Gui yëpp laay yemale. këlëm yar gañ xam mais dañu dem ba ci biir mu am luma gis mi melni ma dama forcer wa jamm gën démé wul non ah dañu gis sa combat bi bi ngay bëri stade ñu bind ci tarkinda waaw tarkinda mom mom man sitala bu sitala tuddu man sitala tuddé sama bop mom licence bi moy bëre sita moo ma défaral lolu mo bëggumul kon tamit kon licence bi ngay bëree sita mbër mo lako défaral defaral jot na tamit nga léralal ko nit ñi waaw sita moma gis ma bëre mu ñëw fi stade ñaaram gis mbolo bi ma top mu ne ma yow waratoo bëre arène waratoo bëre mbapat moo loo ma ne ko ah léegi lan laa léegi nag mu ne ma dama lay defaral licence mais ba ma ko waxee sax ak nu ma toll xam nga mais yàlla def tamit mu utal ma licence ma bëree mu utal ma mooy lijjanti combat ma bëree ku si mel tamit Zal Oni kooku tamit combat yi ma yëpp moom la di sant Fallou Ndiaye bu baax waaw Fallou Ndiaye tamit la jël teg ma si loxom Fallou Ndiaye combat yi ma bëree yëpp moo ko maa ngi nëbbi rek la tëggul waaw noonu la demee nga am combat le 27 janvier sa diggante ak kan sama diggante maag Caatu Rëbës Caatu Rëbës ah xalé yi rëbës yi nee combat bobu du yomb de. non combat bobu mom instant mom gaay dañ ma waxon sax bul ko jël mais amana dafa am nu mu demee sax mo doon jog ndax dam combat bi revanche la dam fa dugon am fa ndam wa mu dam fa dugat combat bi passé ñu gis yow euh, mbeur bu yaq defe naa bu ndam ah? wa bu nga béré ko béré walé pression bëree waale moment yooyu nan nga ko dundé ak aussi tamit sénégalais yi nee nañ nga sa digënté ak euh, guuy gi instant bi fan ngeen ci tollu ça va wala ça ne va pas. non suñu diggante ma moom moom moo loolu comme combat bi ñëw na ma combat bi jàll na si jàmm. waaw man yàlla may ko ci aussi ndam. yàlla may ko si ndam man dañu ma écarté woon kon ak ma moom meluñu mosuñu woon mel noonu mu dem combat bi dem ba mu tax mu demee noonu. kon man man kooku noonu man man donc léegi maa fi nekkatul di topp mbër pour mu leer nit ñi. man waa Géejawaay dañ maa yaakaar ñëpp jug taxaw pour jàppale ma. loolu dëgg la gars yi nee nañ bu Siteu tollu ni nit ñi te buy bëre di mel ni moom moom ëpp sax mbër yi. maanaam lu ma liggéeyal waa Géejawaay la rek waa Géejawaay moom Baay Faal la ngeen mën a jaay ñu ànd ak yow mhm. su may bëree gis nga nu muy demee gis nañu mbooloo bi may yóbbu guy gi mi ngay wax noonu sax du ko mobiliser fii Géejawaay waaw noonu la demee quoi kon daal mun nañu gis ni léegi yow guy gi daal nu golo xam na ko boo booteeg doomam waaw noonu la demee te parce que ay combat dama si daan sonn daan si daanu kaso mhm. musu fa teg tànkam mhm. combat yooyu yëpp nga dundi ko guy gi ñëwul teewal la te ñu gis contre ama ñu gis ñëpp gis la devant tout le monde bu Siteu ñëw jaayante kombaa bi ba pare guy gi bàyyi ko fa kon lan ngay leeral Sénégal yi nga xam ni ñu dégg ko. non li may leeral Sénégal daal mooy jour boobu noonu lu yàlla moo tuddoon damay dugg kaso te foofu la koy jaaralee si signature xeex am di ñaan loolu noonu 2015 boobu ba léegi maa ngi sant yàlla xam naa samay nit nag bu baax. balaa ngaa balaa ngaa xam dëgg ñi la bëgg nga nekk ci ay difficulté leeralal ñi nga xam ni ñoo doon soutenir. waaw ba ma fa demee moom apport dafa jël dafa dagg bee dem États-Unis dem a combat am fàtte sax bu mu ngi kaso. ñëw fa yónnee ma dara ku si mel ne Pambay Mbaya. Mbaya mm-hmm. mu jamono jooju mu ngi fa ak Ciss Thiat. Mm-hmm. ñu ngi fa bon lañ daan dugg daggal ma cent mille dugalal ma ko sama compte bon moom laa nekkee woon si jeel bi xam nga ñu taxaw fa taxaw bu rafet sonn ma fa moo loolu affaire góor la rek kon nan ngay ñan ngay nuyoo ñi nga xam ni caabi féete na leen ginnaaw ban message ngay lancé waa di lancé tamit ñi nekk prison surtout rëba 100 mètres mm-hmm. waaw di di kii sama gars yi fa nekk xam nga ñoo xam te doon and ku ci melni ñom ñoom ñom Moussa bu ndaw boy nekk ak Manuel ak boy nga xamne dañ leena japp yobul yóbbu leen convoi ay càll mber boy nga xamne dañ daan sonu sama lamb ba sama open press bi passé gis nga nu mu demee ak sama combat am boy ci japp boy booy yi nekk forbe maanaam di surtout waa 100 mètres nak ak wa campé di bëggé gaay yi nekk kutaal parce Serigne Touba Mbacke ñoo xam ni ay samay mak ñoo xam ñom ñoma tété barki Serigne Touba Mbacke def ci man fit ak jom waaw. sa combat bi di ñëw la 27 lan ngay lancé ban message ngay lancé sa ay supporters ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñooy sa ay am di jàmm ak sa ay fans. waaw li may lancé sama combat bi moom muy waa Guédiawaye ñëpp ñu ngi koy par ndax combat bi la 23 décembre la woon. ñu ko ba la 27 gars puusaat ko waa ak problème mu bi la woon. gars yi puusaat ko mais teewul gars yi ñu ngi waaj la 27 janvier bi koy bëree. ñu ngi koy bëre arène nationale si lu gaay waxagum. arène nationale. waaw foofu lañ koy bëre si lu gaay wax di si woo waa géejawaay bi ñëpp. Mm-hmm. di leen wax ni combat bi seen combat la di woo tamit ay see yi nekk géejawaay bi yëpp. Mm-hmm. waaw di woo ay see yëpp. waaw ñoom dañ may jàppal dañ may taxaw. Balla ak Modou Lo nan nga ko jàngatee nan nga ko gisee. waaw Balla Gaye ak Modou moom combat ba moom ñëpp gis nañ ñu mu demee ñaari mbër yëpp liggéey na ñëpp xool nañ li liggéey. Mm-hmm. ku xool Balla Gaye sama mag di ko sant tamit bu baax Balla Gaye daf may daf may taxaw. daf may jàppal naan ma booy jàppal barke Serigne Touba Mbacke di ko wax ni combat bi ñu ngi koy ñaaral ndam ndax bu amee ndam ñun ñoo am ndam nante yi combat boobu combat nante yi la waaw loolu laa bëgg mu leer àdduna mu leer waa parcelle ñu gis ni Balla Gaye dafa demoon gàddaay ji ñaari at ba tey boobu ba tey Modou tamit mi ngi ci làmb ji di bëri nga foog ni côté favori kan ngay jox favori si combat bi boo ko doon jox waaw combat bi maanaam su may jox favori dama naan balagay Gaye laa jox mais duma ko jox favori dama naan ko mu wàccee boppam xam ne moo Modou Modou liggéey na tamit mais Balla liggéey na ndax gis nañ defoon na gàddaay ñëw ñu gis changement bu doy waar. waaw contre Gris Bordeaux ñu gis tamit lu mu ci def. Mm-hmm. waaw di ñu ak fi mu jigee woon ak ñëpp ñu xoolaat combat boobu. te liggéey na gis nañ li mu liggéey. Mm-hmm. dimanche ya kii yàggatul le treize le treize yàggatul da nga wax sànq wax bu am solo sa ay fans sa ay supporters ban message nga leen di lancé bu làmb amatee ñu dal tey ndax dañu ni làmb ñaar ko séq làmb foo la lan ngay wax sa xarit yi nga xam ne sa xale yi nga xam ne da nga wax léegi dañuy am problème saay sooy bëree est-ce que jarul tey nga yeddi leen pour soo amatee làmb ñu def dal ak tey ku yàlla may ndam ñu xam ñibbisiwaat ci jàmm lan nga leen di wax parce que Sénégal yëpp ñu ngi lay seetaan waaw waaw di wax ne comme sama combat yi sama booy yi xam moo mooy loolu booy moom réunion nañ ndax fan yii yëpp ñu ngi réunion jot na nag ñu réunion ndax mënoo saay sooy bëree problème di am beneen bee passé Sénégal yëpp dégg nañ ko bu Siteu buy bëree xale yi ñëw nii wax leen ñu dal ñu tey làmb suñu cosaan la bu ko kenn yàq waxal lool si ay supporters ñu dégg ko waaw comme li ñu wax rek ndax samay supporters moom comme lu ma la wax rek ñu ngi réunion fan yëpp dama am benn mafia mafia bu Siteu benn groupe WhatsApp gars yi groupe boobu waa benn tali yeeg gars yi maanaam foo xalaat ñëpp a ngi ci. ñu ñu may dooleel barke Serigne Touba daal ñu may jàppale si côté bu ne. combat bi passé groupe bi yëpp ku si nekk ñaari junni nga joxe. ñuy waajal sama combat bi waaw. waaw mafia bu Siteu. waaw tarkindaa bi ba tey li ma wax. li ma la tontu répondre ko wax leen sooy bëreeti ñu dal tey ndax sénégalais yëpp ñoo lay seetaan te comme da nga weex dunk jot na tey nga lancé leen message ñoom booy bëreeti ñu dem stade ci jàmm ñibbisiwaat ci jàmm jot na. waaw di wax ni gars rek nañ dal te xam ne combat bi combat bi diisul jaruñu koy yenu combat bi diisul barki Serigne Touba caatu rëbës du Thiès. ah caatu caatu rëbës champion la de pourtant bu Siteu. waaw caatu rëbës champion la ndax champion boo xam ne ñaari combat nga bëre benn victoire benn défaite man man bii mooy sama sixième combat benn défaite laa amagum. loolu moom ñëpp xam nañ ni mbëru réew nga mais. jot na tey tamit nga lancé waat message sa supporters yi ñu dal ak tey ndax chaque jour ñu ni bu Siteu buy bëree coow day am gars yi lépp du lépp lañ mun a wax. moo tax ma bëgg nga leeralal nit ñi ne yow nit ku baax nga sa ay supporters nag il faut que nga yedd leen conseil la ndax yaa ngi jëm le 27 janvier sa diggante ak ki nga xam ne mooy caatu rëbës. waaw waaw supporter moom dina wax nañ dal te xam ne combat bi diisul buñ koy yendu combat bi combat nante yi la. combat bi combat nante yi la. kon nag nandi tey dañuy fayeku wala. non soo déggee man la combat nante yi maanaam combat bi combat nante yi la. xam nga buñ ne nante yenn saa day xaw a doy waar ci côté gis-gis ci côté dégg-dégg. waaw nante moom mooy ku nit ku baax rek. nit koo xam dafa jóg di jàppale benn ndaw buy jóg. Mhm. nekk si yoon loolu maanaam moo wat moo tax ñu naan nante koo xam dafa jóg pour jàppale benn ndaw. sa dernier message lan ngay lancé autorités yi nga xam ne ñu ngi lay dégg pour sa combat le 27 janvier ñu ñëw soutenir la. waaw autorités yi moom maa wo sama combat bu baax ku ci melni sala cham sala cham daf may mm-hmm. jappale bu baax mm-hmm. aladi nar mom waxale mako koku ko la mm-hmm. moom sama taw waaw mom la tuddee sama taw aladi nar maa sant bu baax di wo ci combat bi di wo bara gay waaw rakam pap gay momo ma keureum Maris fotam wa seug seug ay nit ñoo xam de rek États-Unis lañ nek ay Brésil sam ben gaan bo xam Fallou Brésil lañ koy ay Bala fay ay ñom xam nga gaay wa mafia buusira bi gaay ay nit ñu baax lo xam dañoo pour barki seen taw ku si mel ne Omar Baas Omar Baas daf may jàppale bu daf may jàppale ñaanal ma may ma xaalis di sant gars ay Thié Yacine gars yi ak ñi nga xam ne ay Europe lañ nekk ay kaw mbiri ay Cheikh bu France gars yi dañoo jub pour jàppale ma barki seen taw. bu cité sa dernière tàggatoo. waaw sama dernière tàggatoo moom mooy di di di woo ñëpp sama combat waaw di woo gars yi di woo. waa sa supporter yi la 27 janvier. waaw waa benn barak. Mm-hmm. ñoom Modou Colobane foo dama fa am benn mafia gars yi dañ ciy jàpp. ak waa mafia bu Siteu bi yëpp barki Serigne Touba wooyi ak. bërë yi yaay faal yi gaa yëpp maa na ni woo sama combat barki Serigne Touba Mbaye mbokki Géejawaay info loolu lañu amoon tey nag bu Siteu la ñu ñëwoon fi nga xam ne mooy école de li Mor Fadam daal di ko ci fekk waxtaan ak moom waxtaan bu am solo mbokk yi fii dong fii kase fii la làmb ji di dawee te fii lay bëree te fii lay daane ba beneen yoon ak beneen daanaan